ni Bienvenue sur di Vision. auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala sayyidina muhammad nabi lumi wala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa sallama tasliman auzu billah bismillah inna waliyallah mbokku internet yu Salam Vision mbégte la ñoom tey dellu siwaat ci seen beneen numéro ak seen jotaay bi nga xamante ne moom la leen di faral di baaxu di jagleel saa su ne muy seen jotaay yu faj sa jàngoro ñu amaat mbégte tey dellu siwaat ci beneen numéro seet siwaat koo xam ne wax dëgg yàlla namoon nanu ko gëjoon nanu ko gis itam waaye fexe naa ba jotaat ci moom kay bëgg waxtaan waxtaanee waat ak moom rek incha allah bi bu ca kanamee di ngeen dinañ xuus ci ay point ndax jamono yi mel na ni génn na fi ay yoon yoo xam ne bu ci ne daal euh, danañ waxtaan ci lu ko sababoo nag yu ni mel waaye daal bala ñu def dara dañ koy daal di nuyu. dalal ko ci biir jotaay bi macha allah rabbi sëriñ Souleymane ñu ngi lay nuyu di la ziar waaye di la dalal ci biir jotaay bi macha allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من asalaatu wasalaamu ala asrafil xalqi sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima wa radiyallahu an saaxibil xadmi wal fadli zaati ahmad muhammad at-tijaani sarif fatimi radiyallahu taala ala nabi amin asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi leen di leen ziar mboolem internet bi rek ku di dégg rek ku di bàyyi xel tamit ñëpp ñu leen jot seen gumu wa asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu sëriñ taala ñu ngi lay ziar bu baax di la fay nuyoo di la ñaanal guddi a wér gëram di la ko ñaanal mbooleem jullit di barke Seydina Muhammad jërëjëf sëriñ Souleymane Diouf ci nuyoo bu am solo boobu macha allah euh, yal na yàlla nangu ñaan yëpp ci daraja Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam euh, sëriñ Souleymane wax nga ko léegi ci wax ji waaye junjoon naa ko mbokk internet yi xam ne ñu ngi ñuy suivre saa su ndax xarit yeeg soppeek am di jàmm yi kenn ku nekk ngi doon laajte Souleymane ana Souleymane rawatina sa xarit yi nga xamante ni macha allah rabi euh, lépp daal mënee su ko wax mu ñu bëggoon xam Souleymane génn yi nga xam ne mi ngi ko doon génn lan moo sababoon génn bi faji ajooy jaam ñi la dolli jiwaat xam bi la wala gën a dëgëral taxawaay bi la wala daal lan moo sababoon dëgg-dëgg li nga xamante ni moo doon génn bi macha allah rabi. waaw Serigne Talla génn bi génn sant yàlla rek ndax euh, comme que jaam yaay dañuy sonal sa anam bu ne. Mm-hmm. ñu génnoon rek pour maanaam boobu jukkiwaat tuuti sa xam-xam. Mm-hmm. donc xam-xam moom day wuti rek. Mm-hmm. waaw ndax nit ñi doo bëgg kër faj say aajo. moo tax ñu génnaat comme que nit ñi dañuy ñëw. ñu génnaat dem wutiwaat xam-xam. ah dool di suñu suñu rootuwaay. ndax fi mu nii euh, ñuy ñëw jëm a jàmbali fan yi dafa bëri. damay ah, di ay sëy di ne ñu ma koy jàmbal dafa bëri. te il faut que ñu gëstu xam-xam. te xam-xam tamit ah, dëgg la damay faj say faj gi tamit foog na mi xam-xam doon naa sama maam waa ah, taxu ñuy wax xam-xam mm-hmm. doon baax na mais jàng mu wér moo gën mm-hmm. moo tax mu génnaat da wutiwaat xam-xam nekkaat sa aajo jaam yàlla yoo xam ne tamit da am ñoo xam ne mën noonu liggéeyal mm-hmm. pour maanaam tuuti la sama pare sala bàyyi ñëwaat loolu tax yàlla dimbal na ma ah pare gum naa ataan ba si kanam tuuti incha allah instant yii nii moom maa ngi fi ba si kanam incha allah allah léegi est-ce que xam-xam boobu noonu sëñ Souleymane dollikuwaat bi muy dollikuwaat ak tey jii ni ni ni ni ni nit ñi xamee woon Souleymane ci mën a seet nga xam ne Souleymane maanaam ci wàllu seet ci fàllu yu mel noonu la li si xaar ak yooyu Souleymane dala si daan wax ba wax la ay tur est-ce que léegi xam-xam beneen nga xam-xam boo gëstu jiwaat fi ne du du du la loolu wala fi ne ñoom ñaar bokkuñu ñoom ñaar dara. waaw loolu moom bokkuñu doon damay gën a yokk gis na instant yii am na beneen bu ma yor sax bokk sax boo xam ne sax. Mm-hmm. Ah waxuma tudd sa sa waaye leneen loo xam ne mën na toog sa biir kër moo wax ne na saw. parce que loolu moom mbaaxul seen borom loolu moom am na luñ si gëstu lu bëri bëri bëri loo xam ne soo ma wooyee. Mhm. jox ma sa tur sa turu yaay fii ak 30 minutes sa mbaaxu yàlla yonent bi wax la la xam ni maanaam moo nekk si yow. Mhm. incha allahu rabbi mais lépp la si mbaaxu yàlla la. mais xam-xam moom wax dëgg yàlla di mhm. mais instant yii nii moom ah. lu may moom macha allah daal moom sant leen si yàlla daal. Mm-hmm. sant leen si yàlla ndax yëg nañ ni ñun bu ñu demee tamit sunu maam am na loo xam ne tamit jëlee ko si ëtt ba. Mm-hmm. am na loo xam ne jëlee nañ ko si biir àll yi tamit te loo xam ne maanaam ba suñu wàll la ñun. macha allah. Mm-hmm. mu doon lu am solo loo xamante ni wax dëgg yàlla nee xam-xam moom lu mu gën a yaatu gën a baax bu fekkee ma ngay jëriñ aw askan loolu moom dëgg la kenn dootu ko naatable mm. waaye tey ji fi ne ci bëri sëriñ soo xam ne fi ne riir mi dafa bëri ci ñoom loolu ba tax na nit ñi fi ne jaaxle xamatuñu fu ñuy jëm xamatuñu ñuy def waaye Souleymane moom mu doon koo xam ne wax dëgg yàlla xam nañu ko xam koo xamante ni mm-hmm. moom mënuñoo réer doon na koo xam ne tam mënta réer fenn ndax fi ne wax euh, xam nañ ko macha allah yàlla na yàlla xeeb dolli mm-hmm. mais Souleymane tey ji ci ci ban fànn dëgg dëgg dëgg nga doon yokkee xam-xam bi ci génn yi nga doon génn si wàllu femme fi ne instant yi guddi nii nii xam-xam bu ma yor fi ne nii. Mm-hmm. bu weex bi si gën a importance si man. Mm-hmm. si wàllu alxuraan. Mm-hmm. am na lu ma si yor lu bëri loo xam ne tey jii. ku si jëflante si maaxu yàlla. si gis yoo xam ne day wut ba woon ni. ah bokkute sax fana dem. dama lay jox lu ma lay jox du ma la appal mais dinaa la jox nangam su ma la ko joxee. su mbaaxu yàlla bis sàngam dinaa la woon na nangam lu xew seen kër. Mhm. waaw incha allahu rabbi te loolu fi mu ne la koy jox mooy waral fi mu toll nii yow lu xew ca këram moom ca bés ba waxtu wa nga koy jot mu xam ko. su mbaaxu yàlla. loolu moom fi mu ne lu mu doon loolu. <laughs> loolu maanaam boog loolu ma koy jox. Mhm. maanaam boog su ma ko aaree ba pare. Mhm. lu ma koy jox maanaam gàllankoor bu mu ñëw su ma ko dindee ba pare dama koy jox tegtal wan na gàllankoor boobu dañ na. te misaal tey ji mën naa toog bi si yàgg jox la. ñu ne galaag gi taq ko. boo déggee kenn ku feebar seen kër. Mm-hmm. wala kenn ku la jege koo xam ne avant la xatak feebarul woon dafa woon dara. Mm-hmm. na yëg ne feebar na. ah wala yaram bi di tàng wala yaram bi di jam mel ni ay puso yu koy jam. Mm-hmm. tekkil gàllaaj gi. soo ko tekkiwul nag moom man musiba mën na kaa mën na kaa que looloo tax. maanaam kon gàllaaj gi fi mu yi nga yor fan yi mooy fi bu ko doomu aadama bi amee moom fi mu toll nii ku ko doon fexeel wala ku doon ko bëgg a def lu bon sax fi mu toll nii daanaka da koy da di gàllankoor. si mbaaxu yàlla. sëñ bi loolu garaaw na de ci mbaaxu yàlla. Mm-hmm. naa si wér am na boo xam ne dañuy toog suñu waxtaan bi jubóo si mbaaxu yàlla. si mm-hmm. kurus laa koy fajee. est-ce que si kurus. ci turu yàlla yi daal. si murus kurus dina xam ne si turu yàlla ya rek dañuy tànk si mbaaxu yàlla. Mm-hmm. incha Euh, Souleymane Sarr damay bëgg a jaaxle tuuti quoi parce que li ngay expliqué ni dafa garaaw trop te fi ne fi ne nit lu mel nii lañ bëgg maanaam mm, wax ju ànd ak jëf joo xamante ni wax dëgg yàlla kenn du ko natable kenn du ci am xel ñaar. Mhm. am naa ay seede yu ay doomu aadama seede man ma ko ndax man dama sob te nee émission bi defuma promotion wu kenn. Mhm. xam-xam la ñuy génnee ngir jagleel ko askan bi man defuma promotion wu kenn. dëgg bu doo promotion dama la naan ma temps nga fay ma temps ma ñëw def sa promotion mais man defuma promotion kenn. xam-xam boo jëriñ askan wi laay lijjanti ngir réew àddunaa jaxasoo. Mhm. kon damay bëgg koy wax lu concret comme nii ngay def nii dafa am solo. Mhm. mais bokk na ci Souleymane dëgg-dëgg ci xam-xam bi nga xam ne uti ji ngoo ko woon li nga ci gën a wax nga ko léegi mooy xam-xam bu weex muy lu leer muy alxuraanul karim mi nga xamante ni lu mu mënta saafaraal doomu aadama bi ci du àdduna amul. Ah. kon xam-xam boobu noonu lu wax loolu noonu. Mhm. léegi ci yan côté la nga nga xam ne fi mu toll nii utiliser gu nga ko gis ci ay résultats moo xam ci côté social ci côté nit ku bëgg a ubbeeku nit ku bëgg a yokku nit ku bëgg euh, siiw. Mm-hmm. ci ban côté daal nga fi wala nit jaxa gën a boolewaat ay ay ñooñ wala lan. gis euh, Serigne Tall. Mm-hmm. gis sëy. Euh, mm-hmm. guddi toon nii nii nii nii nii ah, takk naa si juróom-ñetti sëy si weer bi ñu dugg nii juróom-ñetti sëy. te bokk ñaar ñi ñoo bokk fu ñu dëkk waaye yi si des bokkuñu fu ñu dëkk. te te te yaa leen ñaanal fi mu si baaxu yàlla la tombeel mm-hmm. ndax su waroon baaxu yàlla loolu du amtu. Mm-hmm. ndax kenn kee si rëcc juróom-ñeent lañu woon juróom-ñett am kenn ki amut. Mm-hmm. ndax yàllaa ba tiim. waaye ñoom juróom-ñeent nga doon ñaanal. waaw ñoom juróom-ñeent ñooñu juróom-ñett ñëpp am nañ li ñu bëggoon. juróom-ñett ñëpp am nañ yàlla dimbali na ma. Mhm. sa yërmande ak mbaaxam. Mhm. ñooñu am nañ jëkkër. macha allah loolu rek dama kaa sant yàlla. si mhm. wàllu sëy. ñaareel bi koo xam dafa nekk si néegu sëy. moom si boppam moom ma woo téléphone wax na ma sama jëkkër ñëw na. kooku moom man woo na ma yónnee na ma ay audio waa loolu moo ko ba ma ko ba ma ko defee ba siyaa moom moom si boppam dama kaa wax ma ne man bëgguma yenn yi nit di ko wax hmm. ndax ndikk day def sutura la loolu mooy sama problème moo tax hmm. naa ñàkk jubluwuñ ci loolu mën nees na koo dagg sax dugal ko waaye dañuy xam ne lii lu ñu monté la hmm. mais nañ ko waxtaane te yàlla tax rek wa maa shay'naa illaa maa alayna nit ki moom waaw jeex na jeex na ah, loolu la sant yàlla la la sant yàlla la nit ki nekk si góomu atal lu lu topp na ñaanal ko tamit suñu borom dangay jëkkër ji ñëw mu wooma ne ma jëkkër ji ñëw na mm-hmm. damaa julli ñaaraaka santee ko yàlla mm-hmm. te xam ne du sama kàttan du sama amul xam-xam mm-hmm. sama alawoo gudd chaque jour ma wax leen ko mais sant naa yàlla li yàlla jég leen maa siy yem maa siy suturawu maa siy ñaanal maa siy nit ñi maa si sant yàlla lu ma si ñaanal yàllaa ma si dimbal maa si gis résultat te incha allahu rabbi guddi yi nii nii nii sax lu si yoon nii tax si bëri ñokkee gu ma waaye bis ma ko ñokkee mhm. si mbaaxu yàlla am yërmandeem gis naa ne incha allahu rabbi mboolem koo xam ne dafa nekkoo si gàllankoor te yàlla boole ñu mhm. say gàllankoor beneen macha allah si mbaaxu yàlla képp xam ne munuma kaa faj mhm. wala waruma kaa faj yàlla mën a gis yàlla mën la xam loolu moom sax dund ma kay ñaan dama koy ñaan mu doon lu am solo Serigne Souleymane Diouf ci leeral boobu nga wax noonu macha allah yal yàlla xeeb doole te gën a dëgëral taxawaay bi. ci kàttanu sama borom. wax nga ko léegi euh, am na ci suñuy jamono waxtaan nañ fi ma laaj la ne la la moo tax dëgg dëgg dëgg dëgg li nga war a def mu mënoo koo def nga ni ma euh, amaguma ci ndigal ndax kilifa gu mag gaa ngi fi est jii. Euh, kilifa gu mag gi joxe na ndigal ngir wax dëgg yàlla la ngay bëgg-bëgg lépp lépp lépp lépp nga mën koo def wala joxegul ndigal ndax defe naa ne yaa ngi yokki ji xam-xam doonte xam-xam moom ni ma euh, di ko uti dox ba mu jeex sëriñ Talla du duy toon ndigal ndigal gu ma jox nii su mm-hmm. ma doxal ko nii mm-hmm. am naa si benn secret goo xam ne noo mën a ak jaaro mm-hmm. incha allahu rabbi xaalis moom ah du mën la di nga tiim de waaye képp ku banko ba banque mhm. sa banko ba banque insha allahu rabbi xaalis moom duñ ko law parce que si baaxu yàlla maanaam nga xam ne moom loo tëju tëju tëju tëju tëju tëju daal saa yi lool lool la gaa yi bëgg di Souleymane ah man a am na loo xam ne moom fi njaq laa xay def mhm. fi njaq mhm. bayre di nga am ah ubbeeku di nga ko am kaadaangi di ah, te insha allah rabbi naa koom-koom moom di nga am te moom la muy wër loo xam ne si ñàkk bu bees laa xëy def. moo mm-hmm. ko defee rek ah génn si alxuraan. Mm-hmm. génn alxuraan. waaw génn alxuraan. macha allah su baaxu yàlla. loolu moom tawfeex la moom. Mm-hmm. mu mel ni mu mel ni tamit wax nga ko sànq nii macha allah rabi mu doon loo xam ne eh, lu am solo la. ndax dama dama dama dama gis Souleymane am na ci léegi bagaasam mu am xeet yu mu ci soppikuwaat Souleymane léegi am na ci xeet yoo xamante sangat yoo xamante ni moom. ci biir daaraam nga koy sangoo. Mm-hmm. ma bëgg xam léegi lu loolu ndax dafa bëri ay sangat yoo xam da ngeen koy joxe muy yàqu wala lan wala sangat bi moo laaj moom nga koy sang nga ñoom ñu koy jëfandikoo ci sa biir daara. waaw sangat boobu lu tax ñu koy jëfandikoo si biir daara sëriñ taale dafa am ñoo xam ne maanaam boobu seen yaram day yàq. Mm-hmm. seen i àndoo di yàq. Mm-hmm. léegi nag yow waral yow tey jii la boo di kii dafa nekk si ay ay gàllankoor. sëriñ taale euh, soxla boo mën na am nit ki su ñëwee léegi da war a fekk. loolu la la gars yi du wër ijaaba mhm. boobu mhm. du ma ne am naa ko mhm. ah ñaan yàlla mu nangu yàlla la mais guddi yu toll nii moom loolu laay wër koo xam dafa am aajo mu ñëw léegi mu faj ko léegi si mbaaxu yàlla moom loolu laay wër moo tax ndox moomu ndax mi na moom laay sangate ak lu la siy defal si mbaaxu yàlla man la bu ko jéggi boo ko jéggee rek mën naa mën naa yàqu mun na ba yàq si yow waaye man yàqu na si bi yàgg na soo ko demee. Mhm. man samay gars yi ñu wax la ñoo ñu ko na say gars ak sama gars yi bokkuñu. daa mhm. ñoom fu na fu na fu ma la joxee na sangoo. Mhm. soo sangoo ba génne na xam maanaam naka laa sangoo ak bii bokkut. ok loolu moom maaxu yàlla la. waaw da ngaa fekk sax. dangaa dangaa dem nii dangaa ñëw di fekk ñu doon ñëw fii sànq dem. Mhm. waaw am na ñu fi ñëwoon léegi ñoo xam loolu lañ def. macha allah léegi tey ki nekk bitim réew te war a am sangat boobu noonu tey ji est ce que noonu la fas yéene def ak moom. ñu nekk bitim réew bëgg a am sangat boobu doo dañ koy xaatim ndax mhm. ndox du jéggi. Mhm. àll boo xam ne mën naa ko def bitéel bu ndaw ndax bitéel bu ndaw bi dëkk bi dina jàll bu fekkee bitéel mën a jàll. ah loolu mën nañ kar xam loolu am problème mm-hmm. loolu ma su yàlla def na tey ñoom ñu nekk bitim réew ñu soxla ko mm-hmm. dañuy xaatim loo xam ne maanaam di si ndox mi ñi na xam ne moom lañuy def si ndox mi def si ndox mi moom lay xaatim si fooy bi suñ ko xaatimee pare dafa am lu ñu koy defal loo xam ne tey dina ko aar ba ko lu muy egg incha allahu rabbi du yàqu ok ci mbaaxu yàlla. allah. Mm-hmm. mu doon lu am solo loo xam ne moom it mënutoon na ñàkk ñu am ci ay leeral ndax waaw gëstu rek pour xam daal ndax. dafa dafa dafa dafa dañu war a xam daal. Mm-hmm. ndax nee naa sénégalais yi doonatuñu ay dof. seen i xel lañ yor di xalaat. Mm-hmm. xam nañ bu baax a baax euh, ku ku nekk boo déggee daal li nga xam li nga dégg fi mu toll nii wax dëgg yàlla loo ci déggee macha allah yal na yàlla saafara seen i aajo yi aajo yi sa jaam ñëpp ci dara yonent bi alayhi salaatu waaye ba tey bokk na ci Souleymane euh, dama gis toujours Souleymane ay saraxam maa ngi koy wax mi ngi koy wax léegi alxuraan daf cee bokk ci ci ci base li ngay liggéey alxuraan la. Mm-hmm. mais dañuy gis li ci pratiquement naat dafa bokk ci sa ci say bagage mm-hmm. ma buggoon xam nga wax ñu tuuti ci njëriñu naat ak lu tax nga taamu naat. man Serigne Tall bi may soga di defar. Mm-hmm. naat daal di ko moo tax naat loolu seen maam na nga ko baaxoo. moo tax man képp ku may liggéeyal naat ab béy laay liggéey loo xam lu ma si bëgg a def dinaa ko si def. Mm-hmm. si mbaaxu yàlla. loolu moom yàlla ma ko dogalee loolu loolu sunu maam da nga kaa fekk sunu maam mu koy liggéeyee. Mm-hmm. ñun sunu maam toog nañ sunu mu jël naan def si loo xam ne tey jii ndikk dafa ne ñu xet dox. parce que. moo kaa maam lii daal la mu ma ah naat ñu bëri loo xam ne li si secret a li si secret naat du ko naat kese secret la. Mm-hmm. waxuma naa bopp ba. waaye dunk bi kese mhm. rek am na loo xam ne danga si miime ah mhm. sóoratul euh, kii mhm. soo ñëwee foofu noonu ah? na loo xam ne danga koy boole moom soo ko boolee am moom ba sangoo ko juróom-ñaari fan bu neexee yàlla yu leen ubbee ko danga koy def boo xam ne yaasin laa koy booleel boo ko boolee ak yaasin du ma si bëgg liggéey dama ko si def moom tamit yaasin falaxeen ah mm-hmm. yaasin na xadija akum yaasin tabaaraka ah maanaam bëri na daal du ko doon wax fii ba ba déwén du jeex na mm-hmm. alxuraan soo doon tibb fii ba déwén du jeex waaw mm-hmm. ah. te bés bu ne yéen a ngi gëstu di di ci jukki xam-xam bu baax sax na fi ne instant yi nii nii nii nii nii nii tey jii rek comme ni ma wax tey jii ah am na ñoo xam ne tey jii ñu bëri jafe-jafe boobu rek am jafe-jafe ibbeeku ak kaaraange te maanaam boobu ñu koy wax dafa bëri. Hmm. am na ñoo xam ne dañ daan mën naa nangam te mënuñu ko. Hmm. loolu noonu daal gàccee nit ñi bu bu bañ kaa def. ndeysaan damaa bëgg lu ma def rek. Hmm. lii de fekk moom mën ko. lu mu mënul doon du ma si dugg. macha allah incha allah rabbi bu dee toon loolu laa taxawee nag tamit daal. amati na solo lool macha allah rabbi Souleymane Diouf ci leeral boobu tam waaye itam bokk na ci uh, njëriñu naat bi dëgg-dëgg lan mooy secret yi na ci naat. naat ba na secret de taara. naat day naat. Mhm. rab naata si gën a gaaw. baadu. xam nga lu tax. Mhm. taxaw géej. Mhm. dafa am loo xam ne turu turu turu turu yàlla ba ñuy wax latif. moo tax néew naa néew man man damay dégg nit ku taxaw. ah xam latif ba pare am ñeewantaan dara du ko xëccoo latif. latif. tur yàlla boobu ñuy wax mhm. latif. dafa dafa yéeme. Mhm. loo si bëgg a liggéey liggéey soo ko weddee ba mu wuy si la dëgg. Mhm. incha allahu rabbi loo si bëgg dëgg dëgg ko si seen taala. yaa maaliku yaa quddus yaa salaam. boobu noonu rek fan yii maa ngi liggéey liggéey boobu yéeme boo xam ne incha allahu rabbi su paree. dina lay wax loolu de. maanaam kon daal su ma la déggee bu baax a baax a travers naat moom ci ngay fajalee doomu aadama bi rabam dàqal ko rabam ba mu set wicc. si baaxu yàlla du ma si joxee date instant yi nii lu leen wax sa zone yaa su ma si joxe te date. Mm-hmm. waaye dinaa dinaa wax ni incha allahu rabbi guddi toll nii lu ma asee ba jox mënu jox ma ko ma téye jox ma si ndigal. te mm-hmm. mbaaxu yàlla ku ñëw indi aajo léegi nii su ma war a faj dinaa la dinaa la faj su ma war a faj naa la du mën a faj. Mm-hmm. su neexee yàlla. incha allah xam bi guddi yi toll nii moom laa la wax rek. am na solo mm-hmm. bu baax a baax macha allah mel ni kon daal guddi yi toll nii moom daal euh, yal na yàlla xeb dool yi. amiin te a taxawaay bi am na daal wàccuwaay woo xam ne daal macha euh, ngi fi wax nga ko léegi ci ñàkk yi ci kaaraange ci boolewaat ay doomu aadama waaye itam ci ñaanal doom aadama ba mu am borom kër wala dàqal ko rab may na la ci waaye ci wàllu faj am na ci tamit secret yoo xam ne dégg naa indaale nga ko ma bëggoon nga wax ñu ban ak ban la ci. waa secret faj tamit koo xam ne dafa am ballonnement Serigne Tall. Mhm. dama koy faj. ballonnement de vente. ballonnement. Mhm. maa si yor benn boo xam ne. Mhm. suñ ko faaxee boo def ak alxuraan la. parce que. góor. incha allahu rabbi am naa xam ne. su yeneen bi ku dox la na dox ku dox la wu na dox. déet ma la de. maanaam maa si benn secret boo xam ni. Mhm. ku dox li mun a dox ku dox li <laughs> wax ji yegg dafa ko mu. waaye man dama ni ngóor ak hémorroïde moom Sénégal dama ni sëriñ si mënuñu ci dara man loolu laa. Ah, man de yor naa si benn secret man. Hmm. ba si yàlla dégg ni jox ma ko. Hmm. gis ko hmm. man. loo may jox dama kay wax man dama jox sama bàyyi ba jox ma gis. <laughs> de leer doo ma jox doo ma jox ma gis man. incha allah rabbi def na la a jox incha allah. Souleymane léegi bi may ñëw fii ci yow rek am na koo xam ne lu mel nii la may jàmbat ci ngóor ak émro yi. dégg nga garab boobu maanaam lu mu mën a faj dafa bëri balan ma soo xam naa ne soo xam naa ne loolu soo xam naa ne duma la duma la assumer weer du ma la assurer fukki fan du ma la assurer ñaar fukki fan mais soo xam naa ne balaa mu am fukki fan dina santé sa bopp. Mhm. bu ma assurer ni bis sangam rek. mais dinaa la assumer mu am fukki fan si mbaaxu yaa da nga assumer ne yow la nga nekkee woon ak bii bokkul si wàllum góor. doonut loo xam ne pour benn yoon la rek pare mu daal delluwaat noonu maam. déedéet da ngay naan lu ma lay jox ne. traitement la quoi traitement la boo xam ne bu koy jox yaay dem ba xool ba gis na xam. mais est-ce que nit ki boo bu jëlee traitement ba traitement bi jeex est-ce que du du du delluwaat fi mu ne fa mu ne woon. si mbaaxu yàlla yonent bi di dellu. Mhm. day continuer. day continuer si mbaaxu yàlla. Mhm. amatina solo Souleymane Serigne Souleymane Diouf macha allah rabbi euh, ci leeral yi macha waaye xanaa ñu jeexalee suñu jotaay rek gannaaw waxtu wi xoj nañu actualité moom moo lëmbe réew mi. Mhm. wax dëgg yàlla mënta ñàkk Sonko. Mhm. xew na ci jamono moom ndaw si jiiñ biñ koy jiiñ. Mhm. waaye tamit tey jii euh, Moustapha Diakhaté. riir mi nga xam ni euh, indil na ko boppam. message bi ngay lancé à travers ñaar ñooñu ak population Sénégal bi nga xamante ni ñoom lañ koy ñoo ñoo ñoom ñoom ci biir si population bi lañ nekk di fi dund ba pare di fi def yi du yu mel nii di ci xew fi ne gis-gis ngeen jëm ak ban jàngat est-ce que tam c'est humain yëfu nit kese la wala xabtal la wala ñàkk ànd ak sa la daal laa bëgg a xam. gis nga sëriñ Talla. Mm-hmm. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. moo gën ñëpp. man mm-hmm. xayru xalqi. Mm-hmm. kooku mooy xayru xalqi. may gën papa yonent bi tax mm-hmm. wala yaay yonent bi tax moo gën keneen mm-hmm. Mm-hmm. waxuma naa yonent bi yàlla mu ni ah maa ko yónni fi mbindeef pour mu mission bi maa ko mot moo dakaa yónni pour mu mottali xam na yónni woon ay yonent waaye naa yónni koo xam ne maanaam boobu kooku moo maa koy yónni te mu ngi tudd Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te kon bu mu wàccee ni kii mooy gën si mbindeef yàlla ne que ne que noonu wala xale ba maa yashkuru maa anta bi ni'mati rabbika bi majnuun wa inna laka la ajran xayba ba noonu wa innaka la ala xuluqin aziim ko si lenn du si jikko ju rafet kon ku taxaw ni maanaam boobu si boppam sa papa wala sa yaay moo gën moo gën yonent bi sallallahu alayhi wa ab turax tànga la astaghfirullah maa ngi maa ngi koy tuub sax si kàddu gu ma koy waxee sax mu génn du dëgg kon maanaam boog moom mi ko wax ah mën nañ kaa jëlee rek nit ki mën na riir mhm. wax lenn wax loo xamante ëllëg ah mën na laa jural loraange yàlla na ko yàlla gin ñi nag ba mu tuub ndax junt ni ñàkk yàlla na ko yàlla gin ñi ba mu tuub tuub taxaw senegal Sénégal ni lii maa ko waxoon kat damaa tuub mhm. damaa ni jéggalu ndax yàlla mun leen di jéggal tooñ leen ma nay jéggalu ma ma baalu leen ma baal leen mhm. kon yàlla nañu ëpp yërmande. ñaareel bi nga ne Ousmane Sonko. Sonko ak ni koy jiiñ. waaw ni nga gii senegal Sénégal Ndiaye maanaam du euh, fekkee ni moo ko def. yàlla na ko yàlla dimbali. ba loolu deñ fekkee defu ko tamit ngir tamit doomu aadama tamit ñu fay si alal pour mu def loola. tamit alalu àdduna jëru ko. ne alalu àdduna day jeex. day nit ki loo mën a diggee. Mhm. wa an laysani insaanu illaa maa saxaa wa anna sa'yahu sawfa yuraa summa yujzaa aw jazaa'an lawfaa. Mhm. lu waay jëf na nga ko jëfa ëllëg. te nit ki man damay wax sa jour nit ki dama war a bàyyi wa man yaxmal misqaala zarratin xayran yara wa man yaxmal misqaala zarratin charran yara. Mhm. sarran bi kase kase sëriñ taala. ku ko jël bàyyi ko xel bàyyi ko rasulillahi lépp lay def lu bon nga xalaat sa diggante sa borom. mun naa wax sa jour nit ki dangay xool sa diggante sa borom. fekkee ku jigéen ki tamit dañ kaa fay xaar bu mu def loolu. Mm-hmm. na bàyyi xel ne ëllëg day jur njaboot. te mm-hmm. wayam di jeex. donc tamit fekkee moo ko def it tamit. Mm-hmm. na xool ni maanaam boo fekkee moo ko def na tub ni nii maa ko def nanga man nanga fekkee def ko tamit tuuma du jeex. Sénégal yaa gën a taxal bëri na yéen benn gën ñëpp. te amoon na ay noonu. te nit na xëy suba ba ngoon jot amoo ay gàllankoor amoo dara nu wax si yow wéetoo sa bopp si biir néeg na futteeku ba set jàkkaarloo yàlla ni ko yàlla laa la def. Alaaji Abdou Aziz Dabakh day ah am na woon am na benn jour boo xam ne dafa amoon toog ba si yàgg amul dara lu xanaa xari mhm. mu toog dëggitu di jooy mu ne ko waa Abdou lay jooy mu ne ko maam lu lay jooy monsieur man de du may jooy yàlla la moo tax te mënumaa teg ab gàllankoor sagam ñooy ñeqalaat loolu sangatuma ñun ñi na xam moos ñu doo siiw mhm. ku siiw nag sonn mhm. ku siiw sonn mais nag na yàlla jubal ñëpp yal na yàlla jubal yëpp képp ku nekk si ay gàllankoor yàlla na ko yàlla teggi si barka salaatul faatihi képp ku am naaw téefis yàlla na ko yàlla teggi mm-hmm. ndax Sénégal moom foofu noonu lañ tëddee noonu lañ tëddee ndax ndikk paysans yi jékki-jékki wax loo xam ne du moom mm-hmm. ndax bëgg bës bëgg bës nag jërul na wax nit ki loo xam ne defu ko dëgg la ndax sas doomi aadama sasal doomi aadama moo gën a bon mm-hmm. te njott nag baaxut yeneen bi nee na bàyyi leen du njott njott lu ñaaw te ñaare bi ñii nga xam moo tamit eh, na ma baal ak ñi xam ne ñooy publier. nii mm-hmm. publier tamit war nañoo xool li ñuy publier. dañuy mm-hmm. xool li ñuy publier war na kaa xool dañuy publier lu baax te ma ñuy publier lu bon. loolu moom maa ngi koy wax na pour maanaam ñi nga xam ne ñooy si média yi du waxaat lu ne. Hmm. li ñuy publier li nga xam ne ñuy publier. Hmm. te publier lu baax nag moo gën publier lu bon kenn keneen. Hmm. na nga def moom la yàlla fay ëllëg. mën na bàyyi xel lu waay wax da ko waxaat ëllëg. lu waay jëf da nga ko jëfaat ëllëg. kon nag loolu laa doon wax. si wax ji jubee. suñu borom subxanahu wa taala la. su dëngee jàmm ma dëdd la matuma ak istanda matuma. kon nag. wa axiru daxwaana an alhamdulillahi rabbil alamin wa assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu wa ilal liqa waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatu kon mbokku internet yu Salam Vision dégg ngeen ko loolu la ñu indiloon tey ci génn yi nga xam ne génn na ko jamono yi yëpp wax dëgg yàlla liñ bëggoon a waxtaane lépp xajul ci jotaay bi waaye incha allah dañ ko dog dañ koy dog dogee rek beneen ñoom incha allah ñu ñëw taataan si waat leneen waaye sant ko bu baax a baax gërëm ko ñaanal ko sama borom doole ko taxaw gën a dëgëral a guddal wéral ay cëram ba li mu naalal askan wi itam ci lépp loo xam ne taw feex la sama borom yeggali ko waaye itam santit bu baax a baax askan wi nga xamante ni saa su ne ñooñu tax di jóg di sonn di dem di dikk ngir jox leen information bi leen bi leen gënal euh, ñu ngi leen di ñaanal ñoom kenn ku ci ne fa mu nekk lay bëggam ak yéenam ak mu bitam yàlla yàlla sama borom mbirul jeexal dara jàppandal lépp ci dara day sangub sang yi Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam jërë ngeen jëf dig daje incha allah rabbi ci beneen jotay jaa ngeen jëf wasalaam Bienvenue sur Salam Vision.